asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bëggee bu baax a baax ñu bëggoon a wax rek ci l'affaire Samba Ndiaye bi nga xam ne dañ ko def PCA wu SNHLM mu remplacer Moustapha Fall Thié bu Kaolack Samba Ndiaye je le connais très bien man moo nekkoon maire Ndofane même ki nga xam ne moom la succédé di Samba Ka kooku xam naa ko xam famem bu baax a baax a baax. kër ga sax fanan naa fa maanaam ki Samba ndjay remplacer ci maire Ndofane di Samba Ka fanan na kërëm Ndofane ci veyu fête de l'indépendance je connais bien Ndofane je j'ai beaucoup d'amis à Ndofane malik Sall Mamoud Dramé sama xarit yalla nako yalla yeureum dafa génn aduna la famille de monsieur Mbaw ah nga xamné mok sama yumpaañ ñoo bokk ndey ak baay donc Ndofane man dama xam Ndofane ba ci ay donc kon je parle en connaissance de cause Wadiou, c'est un vrai faux type C'est un moins que rien est ce que vous savez que Wadi... N'est nekkoon na PS N'est na PDS bi PS Dano. PDS daanu mu ñëw nekk APR APR daanu mu bëgg a buruxluwaat léegi dama bëgg ñu déglu. wax yu ñaaw ak wax yu salté yi nga xam ne daan wax Ousmane Sonko di suñu leader. dafa am ay wuyu am goor jigen national am kat national buy wër réew mi di jangal bu yi ñu yakatané ak nu ñuy sàccee sax Ousmane Sonko mooy sàcc ba nekkoon chef de service ta am ay château mom may wax góor jigen mom lañu fekk mu ci góor jigen mu koy doxal ak i mom moom may wax violeur mom lañu fekk mu yekkataan aji sar man pour man waji ji ko rek la la wax nguur gi pour kenn jege ko ci rek loolu rek c'est une insulte envers les martyrs quoi les morts ak ñi nga xam ne dañ leen a tëjoon kaso ci combat bi ak ñi nga xamante ni dañoo am ay gaañu gaañu te instant bi ay handicapé lañ maanaam saaga mënta gën a rëy jël waa ji di ko jege rek laa la wax waxuma laa nga ne dañ koy nommé xam nga li dañ lay nurool li olof di wax ne golo du bay baabun di dundee loolu lii dafa ñaaw bon man je dédouane le président de la république je dédouane aussi son premier ministre mais xam nga état dafa yaatu te ñu ci bët dañ leen di proposer rek am na ñoo xam ne yow yaa leen di xam tànnal leen sa bopp ne ñii dama leen di nommer directement par reconnaissance ak li ñu daj ci combat bi ba pare ak seen compétence tamit mais dafa am poste yoo xam ne dafa bëri te ay proposition mooy am mën na nekk ministre bi mën na nekk ñeneen ñoo xamante ni ñoo la koy proposer yow doo xam waa ji parce que APR bari nañu bon trop mais Ousmane Sonko mënul xam ñëpp. mënul xam donc il faut ñu dédouaner len xam une vraiment xam ci révolution lañu joggé té pour ñu accéder au pouvoir dafa am ay nit ñu et quelques personnes am ñoo xamné seen liggéey nañ ko am ñu am ay ci kaso Nous manam dégâts collatéraux yi daf ci te Ousmane Sonko lolu xam parce que à chaque fois mu ngi ngeeg euh, martiir yi ci biroom benn jour bi muy jàkkaaroo génn di waxtaan génnee na foto bi wan leen ko kon man gëm naa ne du seen faute waaye casting bu bon la rek ak bañ a def enquête de moralité ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy def proposition yi wala ñu tay ko loolu mën na nekk waaye dañ leen di demander solennellement ñu dindi waa ji waa ji baaxul santul yàlla nit ku bon a ngi nii xam nga nit nek ci révolution di xex ñu togn ko mu nek Ousmane Sonko nous neewal doole moo ay nitam di len ray di len tejj di nous xañ sen ak sen yelleef tere Ousmane Sonko ne candidat jiñ viol diko traiter de terroriste de salafiste de rebelle andal ay force occulte ay commando lu nek ñu jiñ nous ko ci ay xétu chef d'inculpation yu bon ay saga. suba te moom mii si ñu doon saaga la bokk dossier Adji Sarr bi wax ju ñaaw ju mu ci waxul amul di traité suñu kilifa parti góor jigéen di ko traité de sàcc façon xas bu bon bu ñaaw bu salte bu nekk xas na ko Ousmane Sonko waxuñ na nag képp koo xamante ni ànd ak Ousmane Sonko waroo am doom ndomba tànk ci euh, nguur gi de mais dama ne képp koo xam ne bokkoo woon ci révolution bi ba pare di ci xapp suuf di ñuy saaga di ñuy xas waroo toog ba mbir mu sotti nga ñëw di fa am place loolu dafa yomb PCA ñàkkul ay nit yoo xamante ni mën nañ leen ko def ñu nekk ci Pastef wala ñu nekk sympathisant wala ñu nekk ay nit ñoo xam ne ay Sénégal sénégalais lañ ñu compétent yoo xamante ni kenn mësu leen a dégg ñu ŋàññi projet bi wala ñuy xas ki nga xam ne moo jiite woon révolution bi di ko saaga ñu bëri ñu nekk ci gouvernement bi tey am na ñoo xam ne bokkuñ Pastef am ñoo xam ne. Ousmane Sonko xamu leen woon Diomaye xamu leen woon mais seen compétence ak seen mandute seen bëgg réew mi moo tax ñu jox leen poste yi nga xam ne mérité nañ ko te boo jëlee ci gouvernement bi di ko fa fekk donc kon na leer ne waxuñ ne képp ku bokkul Pastef wala képp koo xam ne d'accord woon démb ak Ousmane Sonko waroo am poste waaye dañ ne képp ku fi nekkoon di saaga di xaste suñu ay mort nga len di traiter de ay nit yo xamne dañu xaru nan len da ngeen a ñàkk da ngay di genn di xexal Ousmane Sonko te ñom dañ doon xex pour sen rew pour démocratie bu jëm kanam pour état de droit ñu len doon persécuter ñi euh, résister nga len di saga. ndax sa intérêt personnel parce que japon nañ ne Macky Sall day tok continuer xam nga Sam Ndiaye bi tay ay pexem bu jubon Ousmane Sonko si kaso balay lay mok jomay waaw léegi lan moo tax Samba Ndiaye ñu koy jël di ko def PCA loolu saaga la maa ngi lancé appel patriote yi ñu tey rek def ndànk seen droit la parce que dafa métti nga xeex daj ci lu nekk ay nit yi la doon saaga dee mu ñëw di ko jëriñoo loolu wax dëgg yàlla neexul ci xol quoi dafa mel ni dañ lay jëm paak ci digg ginnaaw mais nañu tey ñu def ndànk suñu droit la nañu wax dénoncé ko pétition bi baax na lii nag li muy wane mooy la woon woon na gis ngeen temps yi Macky Sall amutoon kenn ku Macky Sall doon nome nit ñi di ci wax Macky da daan nommé ay raykatu nit di nommé ay sàcc di nommé ay violeur ngay sàcc mu lay protéger nga rey nit mu protéger la façon ñaawteef bu nekk Macky Sall def na ko fi façon transhumance bu nekk am na fi mais daoul parce que Macky Sall mel se ressemble se semble waye li rupture amna moy tay nga porté projet bi Ousmane Sonko diko xéxal lu nekk ñu daj ko ci di cotiser un pour activité parti bi ñoñu tay ño taxaw ci di observer lu bëgg-bëgg Ousmane Sonko ak lu bëgg-bëgg complexe manam buñ ñooñu defee lu ñu war a def dañuy taxaw ñu dénoncer ko ne leen ñii dañoo salté ñi war ñoo and ak ñom parce que ils sont nocifs à la société té loolu rupture deug la c'est très important mais temps Macky Sall Macky Sall ñemewul a nomé kenn ku bokk APR taxaw diko contester kon li avancée démocratique le wax deug yalla motax ci benn côté sax dama ci contane lool waaye Samba Ndiaye il faut qu'il quitte E il faut qu'il quitte son poste plus rapidement démissionner parce que di ay nit di len saga di saga une de tous les noms d'oiseaux mu falu nga am jom tok nga di buruxlu mais APR xam nañ nañ comme Ablaye Sow Ablaye Sow ministre euh, vice-président fédération sénégalaise de football nekk maire de Kaffrine tey jii ñoom Ousmane Sonko bu ñu ko mayoon bunt mu mu mu buruxlu mais xam ne ne kenn du ko may bunt parce que moom xàmmee nañ ko ràññee nañ ko mais sàmm Ndiaye nekkul nit ku siiw comme ñoom Ablaye Sow nu ñu siiwee ay ñoom say Seydou Diouf nga xam ne ku nekk président rek yow la ñuy àndal c'est des transhumants de classe exceptionnelle kon loolu daal gars yi taxawaay bi ngeen ci taxaw am na solo rafet na loolu patriote yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant il faut qu'il démissionne su amé jom avant sax kilifa yi diko ko ne na su féké ne deretu gor moy daw ci yaram parce que képp kuñ fal pour nga liguéyal sénégalais la té ñi ëpp ci sénégalais yi muy majorité bi nga xamné ne ñoo voté le président Bassirou Diomaye Faye à 54,28% le 24 mars passé ah ñooñu buñu taxawé né la bëgguñ la da nga wara am jom am ngor suñ la tégalé sa varu dembu sax boko xolé loolu war na tax sax nga am jom am ngor ne ah ñii kat dama leen doon saaga dama leen xas kon xaaral ma toog bañ a bokk ci ñoom des ak sama ngor asalaamaaleykum wa rahmatullah